loolu soo ko déggee nga xam ne taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñoom ñoo woote muy ñaan les jeunes Tidiane de marché Jimbo et environ de Kër Massar ñoo leen di yëgal seen méga xadara juma le 22 septembre 2023 fële nga xamante ne mooy esplanade du marché Jimbo en face terminus 54 bi waaw méga xadara bi def nañ ko ay at di ko fekkee bii nag war a toll ci neuvième édition te boobu ba léegi ñu ngi ciy gis yokkute moo tax ma tuddee leen les fidèles jeunes taalibe Cheikh de marché Jimbo ndax liggéey daan doole jaamu yàlla ak fonk Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh sidil El malik ak ak abou Aboubacar rek mom lañ doylo motax ñuy organiser sen méga khadra juma muy neuvième édition le 22 septembre 2023 fan lay xewé esplanade du marché djimbo en face terminus 54 nu muy démé muy 16h30 dinañ def sen mise en place dalal sen invité après djulit tàkkusaan bi ñu def sen méga khadra bo xamné képp kuy Tidiane di ci yëg sa bop bu lolu weesoo nak ñi ngi exiger képp kuy ñëw ci khadra bi nga def tenue blanche tenue bi weex tal pour djëmmal khadra bi ndax du bëss bu yomb du bés bu tuuti waaye itam bu jeexee ñu bëgg képp kuy jullit képp ku teew ci xadara bi nga teewee ko ndax tàggkatu rasulillahi bu mag boobu noonu muy alaaji Sambuup soppey sëñ Habib Sy Mansour ibnu Seydi Aboubacar ibnu Cheikh Seydi Aji Mali moom mooy jàng bés bi kon à ne surtout pas manqué taalibe Cheikh Ahmed Tidiane xutbu rabbani taajul arifina mu mi di kulli awliyai rahmani abbil abbasi ahmad Tidiane les jeunes Tidiane de marché Jimbo ñoom ñoo woote le 22 septembre 2023 fële ca marché ah mbokk yi yéen ñuy faral di ma topp waxoon naa leen bu leen topp kenn topp leen ma